asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah oh, man la Ousmane Dramé bu la réveillé conscience dañoo dir rek comme ni ñu ko fal di defee bu fekkente ne am na ay yëngatu wala ay kàddu yu dugg ci réew mi euh, dañuy bokk waxtaan ci gëstu ko seet ko pour man caa génn résumé boo xam ne bu delloo ci askan wi rek kenn ku ci nekk da nga mën a xam ni mu demee euh, nu bëggoon a tey ci. le cas de Madiambal ma euh, Madiambal euh, maajoos la moo xam ne euh, xam-xam bu bari la yor Madiambal xam-xam bi bari na fit yu rëy na ma Madiambal ku maîtriser le Sénégal la Madiambal nit la koo xam ne lu muy tàmbali xam na ko te nit la koo xam ne ku mën a véhiculer information ma jëmbal télévision bi ñetti jigéen ñi ñu ko booleel matuñu ma jàmbal ab am xëy matuñu ko ko matuñu ko moo leen gën a maîtriser cette société sénégalaise moo leen gën a maitriser une administration moo leen gën a maitriser les politiques te ma jàmbal dafa bokk ci deal bi te ñoom bokkuñu ci kon te dofut kon ma jàmbal xam na li muy def ma jàmbal dafa sauver dafa sauver deal bi da ko sauver boo gisee ma jàmbal tëb dugg ci deal bi Pape Alé moo ci nekkoon ci xëy di ci wàcc di ko topp booba yàgg na dem ba am bunt ñëw di ci ñamal sénégalais yi ci la nag état bi jóg ne bu fekkee ne sàggat nañ sàggat nañ sonk dana ko jël deal bi te Sonko Pape Alé Niang réeruwuñu te waa domaine réeruwuñu ak Ousmane Sonko te Pape Alé information bëgg am am ko foofu nag ci lañ soññee ma ma jambal ma jambal ak sëñ Bas ñoo ànd ma jambal a sauvé sëñ Bas ma jambal dama ne mësta réeroo ak sëñ Bas ci ñaari minute mësta ak Macky Sall ñoom ñett ñoo ànd noonu nag ñooy nit ñi nga xam ne toujours état bi xam na fi nuy jaar sur le plan psychologique ba su suñuy ngëm-ngëm waaye ma Madiambal lu mu yëkkati xam na ko na mu ko yëkkati Madiambal moo leen sauvé kan boo ko xool lii kan boo ko xool lii rek euh, ma jambal fan la jënd suuf la mu ko jëndee ak li sëñ Bas jaayee mën na ko quarante fois quarante fois doublé na ko te Madiambal ma nga jënd ci àll ba te Madiambal itam il est pour ses pour ses ses actions boo xool suuf yi mu am yëpp Omar Omar euh, Mamour Diallo moo ko signeel te Mamour Diallo ci diil bi la bokk su sutal noonu Madiambal am ko dakaar awale ko ci domaine Macky signeel ko lépp kooku du mooy saboté Macky wala mu di ko yàqal ñoo ànd ma jàmbal sëñ bas la doon defaral sëñ bas it dañ koo jël def ko muy taaget noonu la état bi sàcce sëñ bas boo demee tànkam bi mosu koo teg foofa mosu ko faa teg mais ay këyit la ñuy jël falsifié ko modifié ko jël nag benn kilifa ñu def ko ci nga xam ne bu taali taalibe gisee turu sëñ bi ca kanam duñ ubbi seeni gémmiñ te loolu jaaduwul loolu jaaduwul buñ gisee du dul dëgg ak fu mën a jóge fu nekk en tant que ay taalib yu ne gëm nañ sëñ Tuubaa te sëñ lépp di dëgg war na ñemee dëgg dénoncé ko sëñ Bas war woon a dugg ci lii xamoo nuñ ko naxee ba def ci turam promettre ko daa ñu la sédd waru ko woon a nangu li mam ci fee dem doy na sëkk macha allah kër yi mu fi tabax ba na sëkk ci xale boo xam koo xam ne yaa ngi judd 1974 nga am loo xam ne ñi la mag un centime bu mënuñu koo am war nga waroon ngaa doylu Macky Sall du am nawle sëñ bas coow li am lépp lépp ci yoonu murit musu fee am xale yi fippu fippu di révolté ak di wax lu leen neex musu fee am lu mës sa am nag war ngaa xool lu tax mu am xale yi réewuñu dañoo bokk ci réew mi war cee mën a tedd ay nit aaki moo ko nga war leen a taxaw di ca ànd loolu moo naqari xale yi kenn bokk waxante dëgg Tuubaa képp la nga fa am doy na teraanga mënu koo paase lu bakkan la sag bi nga xam ne xalifa bu dikk jox la ko rek doy na waaye diil yi diil yi dafa am gàcce yoo xam ne bu dalee kilifa ña ko topp ñépp ñooy sëgg te lii war naa dakk ma jambal ak yéen a ànd ci ab combine ngeen nekk ba lii am kan bokk waxante dëgg doon ay jullit jullit du fen saaga wuñu saaga wuñu dañoo bokk ci yoon ki si luñ naqari dañ koy wax fi sëñ Tuubaa joxoñ xam nañ fu mu doon lépp mbuuraake la ba ba ngay àgg aljana xam nañ ko bu wér wér te ñoo ngi ci waaye àdduna bi dafa am ci loo xam ne il faut ñu conserver ko muy dignité loolu moo waral kàddu yi ma Madiambal mësta réeroo ak sëñ bas mësta réeroo ak Macky Sall réewul ak APR ay diil la yoo xam ne présidence lañ koy tege Barthélemy Dias wax na li Barthélemy Dias waxee dafa communiquer ak Pape Alé Niang ñuy préparer benn bomb boo xam ne bu tàkkee àdduna tukki ci la ma Madiambal daw nag intercepté coup taxaw di fen nee sëñ bas mi ngi ko jaay cinquante mille francs le mètre carré da ngeen di xool le Leclerc quand Leclerc fi nekk ci Dakar quand Leclerc doon benn patrimoine historique mondial sax laay woon ndax fa la armée française bi nekkoon un mètre carré bi ma jàmbal ne sëñ bas mi ngi ko jaayee cinquante mille francs te moom ca ginnaaw yëmbal ginnaaw yëmbal deux cent mille francs lañuy ñuy jaayee mètre carré boo bëggee ay tool sébi xotaan lu dee dee dee da nga cinquante mille ou soixante mille francs mètre carré bi ci digg Dakar digg Dakar place mel noonu nga bëgg koo jaayee cinquante mille francs par mètre carré du dëgg mbir mi lu mu dee da nga ko jaayee cinq cent mille francs par mètre carré te sax jaay ko moo jaarugul woon ndax barab boobu mënoon doon ab université barab boobu mënoon doon ab hôpital barab boobu mënoon koo maasale def ko ay garab ak ay piscine mu doon central park boo xam ne ku jóg Ndakaaru mën faa dem daw wala nga doxantu ndax réew yëpp am central park dafa teggidul du ko jël di ko jox sëñ Bas di ko mbubbale pour man koo sàcc dama ne sëñ Bas du dëgg jaayewu ko cinq milliards mais quarante ba cinquante milliards lañ ko jaayee xalaat leen tuuti fi fi tool bi nekk fii affaire bi nekk le camp fi mu nekk ci dakaar <coughs> xalaat leen ca Kër Massar Kër Massar la fa di jar ngeen ngeen évaluer ngeen xam ne lépp ay ak càcc la ay wor la wuruj la te lor nañ askan wi ma jëmbal nit la de buñ bàyyoon Pape Alé départ communiqué ak sonk communiqué ak Barthélémy Dias bomb la doon boo xam ne la doon boo xam ne le 23 juin la waroon a tàkk mais ma jëmbal ku courage la ku dëgër fit la ku mën a xeex la dégg wolof xam fu muy placer ay communication seen bomb bi moom la peeral jëmbal da ko peeral Pierre Atepa Goudiaby demoon na ba ci sóobu waaye ko gëmul dara alal la gëm ak suuf ba mu waxee Macky la tàmbalee daw ak wax wax wax ñaari wax ak ñetti wax nangu la commune maanaam waxul waxi dara ba Madiambal dikk nag yàqti lépp ngir mi loolu la ma di leen xamal ne ma jàmbal musta réeroo ak sëñ bas yéen murid yi nun murid yi di saaga ma jàmbal ma jambal ak suñ sëñ bee ànd musuñoo réeroo billaahi musuñoo réeroo ñoom ñaar ñëpp APR lañ te ñoom ñaar ñëpp Macky Sall la ñuy dawal lii moom bu ko nangoo moo am buñ ko bañee moo am bu ngeen bëggee fanatique nag yóoru leen ci fanatisme wax lu leen neex waaye li am te wóor mooy ma jàmbal musta réeroo ak Macky Sall musta réeroo ak Atepa Goudiaby musta réeroo ak kii ñu naan sëñ Bass encore une fois sëñ Bass mën naa xamul sax fan la place bi ne xamu ko mën na koo bañ a xam ay kayit képp falsification képp amul leneen sëñ Sidi Mokhtar Mbacke nga xam ne yàlla rek leneen ñoru ko tey buñ demee bay jël ab terrain di ko def ci turam te moom yëgu ko ak tooñ mënu koo màgg ak tooñ mënu koo màgg te nun buñ ko waxee ñu ne danoo réew ak danoo murtaka gëmuñu sëñ Tuubaa ak ñu ngi saaga sëriñ si ñu ñun duñ saaga mukk benn sëriñ ay doomi sëriñ lañ juddoo ci kër sëriñ mokkal alxuraan suñ kër bàyyi te génnuñu ko mokkal alxuraan suñu kër yi bàyyi te génnuñu ko dama ne kan bokk honnête doon ay jullit te am gore réew mi ay chrétien lañ ko bokkal te kenn du leen dégg ci coow suñ cooykat yi xëy nañ ko gàttal te jubli ci yàlla ak yonent bi ak jubbanti la Sénégal waaye ma jëmbal euh, li ko Mamour Diallo faye mu ngi ne fàng ñépp ko xam pour lan mu dénigrer sonk ci la ko fay waaye bii yoon daañu ko fay beneen fay boo xam ne bu garaaw lay doon ndax cinquante milliards moom la ma jëmbal def cinq milliards cinquante milliards ma jàmba def ko cinq milliards kon lam ca war a jot dana bari kon fan yi ma jàmba dana suuf soo xam ne dana bett Sénégal gépp kon noo ngi jéggul te ñaan jàmm yàlla yàlla suturaal yàlla yàlla indi jàmm ci réew mi moom képp la ni ñaan waaye képp ku fi lok lok loo ne moomoo ko sa put gi daañu ci té daañu ko téye ba nga yàbbi ko te xale yi foog ñu wax leen dëgg xam ne leen lu xew indi taarix l'islaamu Sénégal ñu ko confisqué en 1895 la ko tubaab bi jël jël ceddo yi def leen ni chef de canton jël doomi ceddo yi yóbbu ñuy jàngi jël doomi sëriñ si yóbbu ñuy jàngi mu jël sëriñ si def benn ARS yi dagg lislaam bi ay parti la ko dagg kenn kon mu jox sa licence su tarixa nga téye sa licence su tarixa moo tax sëñ Tuubaa amul tarixa bëgg ko amul tariixa parce que pour nga am tariixa il faut tubaab bi jox la aw këyit wutal la licence nga door a mën a pratiquer te li ngay def ay réglement lay àndal te képp ku signeel tubaab bi moo tax De bi mu ñëwee Macron bi mu ñëwee Sénégal lu mu wax je reviens en France avec la je reviens au au Sénégal avec la politique de De Gaulle Macky Sall siiwal ko en 1958 ci la De Gaulle yable ñu jubbantiwaat diine yi jubbantiwaat société bi. l'islam jooju dëggal tegoon lislaam jooju la Macron ne mooy continuer Macky Sall ñëw na ba ci xalif général des Tidianes xamal ko ne ko bëgguñu beneen diine diine bi fi nekkoon ngir seeni maam seeni maam signé ko ak dëggal en 1958 diine joojoo fii ne bëgguñu beneen diine kenn dellu honnête te wax dëgg xale yi xale yi fanatisme baaxul dem leen ngeen ci laaj ngeen gëstu ci dem leen gëstu ci jàng les informations sont disponible archives yaa ngi dem leen jàngi xale du takk ndigg di say ak a daanu xale du ko def xale dafa dem ci daara yu mag yi dem jàngi daaray kàngam yi université yi yéen kilifa yi investir leen ci njàngum xale xale yi jàngi takk ndigg laxasu di yuuxu du yóbbu am réew fenn kan bàyyi fanatisme nun ñuy wax li ay taalibe lañ waaye des taalibe intelligent ay taalibe lañ yu nekk en colère ay taalibe lañ yoo xam ne yoon wi nga xam ne fi lu sëñ bi joxoñ amul kenn ko xam ne man nga nu koo tax a wàcc yow mi koy wàcc nag ak a dikk di wàcc ak a dikk yaa dul gis waaye mosunoo wàcc yoon wi kenn bokk gore te xam ne encore réew mi dañ ko bokk suñu bokki chrétien lu gàtt gàtt ñu sutural leen waaye ku defe ne ma jàmbal ab dof la yaay di dof ma jàmba li muy def xam na ko c'est un maître ci li muy def il est doué il est intelligent c'est un bon boxeur ma jàmbal fu mu dóor fu ne day dal fu mu dóor fu ne day dal ma jàmbal def benn action perte yëng génn bu mu génn dañ ko génnaloo wala mu xalaatal ko boppam proposé ko jox ko ndigal ne ko génnal ma jàmbal du nit malgré c'est un imbécile kon noo ngi jéggul te ñaan jàmm te naan prêt pour la révolution des mentalités prêt pour l'indépendance du Sénégal et la refondation nationale prêt pour l'unité fédérale et révolutionnaire des États d'Afrique ne manquez pas le 23 le 23 juin le 23 juin serait le retour de la République au peuple sénégalais peace and love peace and love jaa ngeen jëf jaa ni jëf man la Ousmane Dramé mu le réveil des